suis juré que je ne laisserai plus une lame toucher le corps d'une petite fille. Je me suis juré que plus jamais une main assassine n'entaillerait les rêves d'épanouissement d'une femme. Et voilà que le cauchemar recommence. ci yile kàddu la collectif bi ëmb soxna yi xeex wàllu xarafal jigéen ak fitna yi ñuy teg ci ngëm-ngëm waxee déedéet ci xarafal soxna yi. assemblée nationale bu Gambie mu ngi dal di bëgg a waat lii di excision soxna yi nga xam ne ñu ngi jàppale seen sœur gambie nii ne déedéet du ci dal. xarafal jigéen ñi euh, muy loo xamante ne que lu metti la lu jigéen ñi di di dund ci Afrique depuis la nuit des temps te loolu euh, collectif bi dañu taxaw pour bañ ko pour ne déedéet ñoo bañ ñoo lànk duñu nangu loi excision bi nga xamante ne que am na Gambie. ñu interdir ko fa nga xamante ne koo xamante ne que def na ko fa ñu ngir ñu wal na ne que dañ ko fa tere dañu lay tëj teg la ay daan ñu commencé nag tiit bëgg wëlbatiku génnee loi boobu ba fas yéenee voté pour abrogation bi. ñuy sàkku ci état africain yépp ñu dooleel bi xeex. ñu ngi sàkku tey xaar ci bépp état bu nekk ci dendu Afrique mu dal di dugal loxoom jële fi lii di excision ndax lii du jàll. ça ne passera bi ëmb soxna yi xeex xarafal jigéen ñi ak finna yi ñu leen di teg ndax ay gëm-gëm fas naa yéene amal caravane ca Gambie di sàkku ci soxna yépp nekk ci àdduna wërngal këpp ñoom itam ñu dugal seen loxo ci xeex bi ngir jële fi xarafal jigéen.